mbokki Sénégal mbokki internet yi safoo di seetaan info 221 dal leen ak jàmm ci xibaar kawteef moo daal di xew ci ginnaaw xay sud benn élève bu doon def classe sixième di wuyoo ci turu Mor seen Diagne moom la ñu daal di jëm mu jaare fa ñàkk ba kanam ka ko def nag nekk benn xaritam bu mu bokkaloon école doon def classe CM1 moom xaritam boobule moo daal di def jëf ju ni mel ba tax Mor Sène Diagne moomule daal di say jaare rek ñàkk kanam lu ni mel moom ma nga xewee fële ca ginnaaw raay sud mu mel ni nag lu ni mel li ñu koy daal di nemmeeku fii ci Sénégal daal di nay bëri torop ginnaaw ba nga xamee ni nag benn vidéo doon a circulé ci internet bi mu nekk ab vidéo boo xam ni nag ab ñaari élève ñoo fa ca doon xeex mu nekk loole rek lañ cay laaj mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di way jur yi xanaa dañu yaratul seen i doom comme nañu ko daan defee wala li nga xam ne moo nekk école yi ñoom ñoo yaratul xale yi comme nañu ko daan defee